Amadou Gaye président FNBS euh, fédération nationale des boulangers du Sénégal. li fi tukkee dafa simple monsieur Sow bi nga xam ni mooy le fonctionnaire association consommateur moo sàkkoon waxtaan bi nangul ko ko mu ànd aussi benn délégation haute association consommateurs pour waxtaan ak ñun si jafe-jafe yi ñuy dund parce que dafa gis ni dañoo annoncé ni dañuy dem grève mu ni ah man de bu ma ngeen teg grève bi suuf parce que consommateur yi dañu nar am jafe-jafe ñu ko ñëwal ñu waxtaan si ngeen dégg ngeen bu ñu waxtaanee ah rafet nañu waxtaan bi mais dañ dem leen dañ leen wax ni lu tax ñuy dem grève dégg ngeen ko mooy jafe-jafe yi yokk courant bi yokk ndox mi yokk lépp levure amee améliorant bi lépp nga yokk nañ ko waaye nag ñun dañu ñoo tënk mburu kenn mënu ko yokk te tooguñu waxtaan ñu ni koon suñu revendication bi njëkk mooy nañ bëgg a toog waxtaan ak état bi bu ñu xool ndax yokk mën na amul yokk mën na ñu loolu lañ wax waaye ñu leen su leen waxtaanagu leen sax en attendant mais def leen lii ah euh, levée bi am na dañ ko yokk fexe leen ni mu wàññeeku droit douane droit douane bi ñu ko wàññi mu wàññeeku droit douane koy décidé du ministre des finances du benn journée la benn journée mu ni ok droit douane bi nekkoon na si vingt six pour cent à trente pour cent léegi def naa ko dix pour cent en attendant je donne un exemple courant bi mu ni yokk na ñu ni kon ok wàññi naa facture bi seen TVA bi danaa ko suspendre n'est-ce yooyu yëpp ay solution la pour que nit ñu mën a dem mais gis ñu loolu suñu communication bi mooy mooy mooy yu mel noonu mooy jafe-jafe yi nekk daal mooy loolu que ni jot na njëgu mburu yokk ñu fa lañ taxaw dañuy dem grève sow ni non bu leen dem grève danaa waxtaan ak ak nguur yi ñu ngi koy déglu biñ toogee waxtaan nag tey nii lañ si jëlee mooy bi boulanger la ñu waxee mooy ñoom instant yi mu toll nii xalaatuñu taxaw bàyyi lañ nekkoon mooy grève bi dañ koy def balaa 15 janvier danañ grève defuñu ko nag pour askan bi sonal leen dañ ko def rek pour nguur bi xam ne am na ay sénégalais yore ay industrie nekk plus de 80 pour cent des boulangers Sénégal dañoo sonn soo leen bëggee recevoir nga wax la seen jafe-jafe soo ko mënul dinañ dem grève loolu mooy solo bi waxtaan laaj naa leen ko parce que ba ñu toogee gasama ba mu leen expliqué ba ñu toogee octobre ba wax suñu jafe-jafe woo nañu benn fan gëlëmal ñu yóbbu ñu direction régionale te ñun dañu wax un problème national donc ça veut dire que ñun ñi fulaa la ñu wonoon kon Dakar la ñu fulaal te aussi ba ñuy wax c'est pour le Sénégal donc sagam fulaa toog fële seen duq daan ñii duñ teg ñii tekkuñ dara bàyyi la ñuy def lu leen neex loolu bañ ko déggee lañ ah. kon nag boulanger on va la lancer un défi défi bobu nak so nag nee na moom noo xool nu mu si ñu ngi koy déglu wayé nak mom lañu biral ni mom il faut ñu dem grève parce que mënu ñàkk fi mu toll nii c'est xam nga xam nga Sénégal mom ku jóg wax leen neex ñu def ko man de Amadou Gueye je suis apolitique té ñi ngank fédération bi région président région yi ñu bëri APR lañu faral ñu le PS même le porte-parole de la FNBS Joseph bi ngeen dégg mom vrai vrai

faaluwuñu de kooku tey bu bëggoon jàmm mais moom bu ñu woowoon danañ wuy mën nañu wax ni sax candidat la mën na am en avance les autres mais defu ko ça veut dire dañ koo wax ni ko boulangers yi ngeen seqal duñ dara léegi nag loolu nag moo tax ñu ni kon faaw ñu def dem grève wane ndax dara la ñu wala duñ dara loolu kese waaw gannaaw bi ñu leen sante rek di remercier euh, bureau boulangerie yi di remercier itam délégation euh, mouvement consommateurs yi ñu ñu àndal. nga xamante ni li des consommateurs mu ngi si ak éco citoyen ak suñuy responsable bureau yi ñun ñëpp ay citoyen lañ euh, te doomu réew mi lañ te li ñu njëkk ñun ñun consommateurs yi on défend ñu ñëpp la ñuy défendre de ce fait que buñ ñu gisee loo xamante ne impact bi li si ëpp si consommateur bi day day dellu si le il y a le consommateur final te il y a le consommateur bi nga xamante ne c'est le producteur mooy mooy joxe moom dana am impact consommateur final dana impact loolu yëpp mën nañ ko éviter ni ñu ko mënee éviter nag mooy lépp waxtaan la bu lu mënta xew waxtaan la crise bi am fii yëpp si àddina bi yëpp euh, je me rappelle bi Poutine door yi njëkkee dóor frappe lu mu njëkk wax ne tijji naa bunti pour ñu waxtaan parce que xam nañ ni lépp si waxtaan la lay te am nañ ay mécanisme yo xamante mu ci biir ministère bi boo xamante ne am nañ fa ñaar boo xam ne uniquement c'est pour le secteur boulangerie bi am na boo xamante conseil national de la consommation boo xamante secteur yëpp ngi ci secteur yëpp ñu ci recours bi ministère des finances douane tout le monde est dans pour que problème bu nga xam ne dafa war a ñëw rek jóg pour impacter ci vie économique bi ñu xool nu ñu koy gàttanoo ñu fay trouver solution ñoom lañ nekk secteur boo xam ne dañ koy réguler kenn waru fa imposé dara kenn wax ñun de wax dëgg yàlla duñ nangu ñu ñoom ñuy jaay di perte xam te duñ ko nangu te tamit bëgguñu tamit mburu mu bon dañu bëgg ñu ñuy jaay ne ñu mburu mu am qualité am hygiène bi si war te loolu dafa am njëg njëg googu nag moom la ñuy woowee ñun le juste prix du consommateur kon ñoom bu ñu nee ba seetlu na ñoom seen juste prix boobu noonu noonu ñun dañ jàpp ne mooy prix bi war a nekk ñoom ñu jàpp ni prix bi mënatu ko nekk parce que te am na euh, écosystème bi li nga xam ne ne dafa indi loolu te war ko xoolaat war nañ ko mën a xoolaat ñoom na commencé woon nañ nit di waxtaan ak ministère mais ñàkk déggoo dafa am seen biir mais ñoom ñëpp ñoo bokk fu ñu jëm ministère bi amul intérêt mu yor benn secteur muy am coow wala am ne am ko kenn amul si intérêt ñoom tam amuñu intérêt bu pour dem grève pour dem grève wax dëgg yàlla amuñu intérêt boobu parce que ku jël say million dugal ko pour gagner da pour gagner xaalis ay taxaw benn jour ñaari fan wax dëgg yàlla taxu laa jóg kon bu dara amee rek ba nga yaakaar loolu mooy arme bu lay mën a permettre nga mën a laaj sa ak say yelleef mais buñ ko toogee waxtaan mën am solution bu gën loolu te man dama gëm ne man solution bu gën loolu mooy dañuy continuer waxtaan tax ma ne leen sen droit ngeen nekk mais ñun sañ nañ ñun en tant que consommateur ñu ngeen ñu jox mburu ñuy lekk ñu leen aja aja ngeen leen sen grève bi ñu continuer waxtaan parce que dañ am cadre boo xam ne moo ñu ko may boo xam ne kenn mënu ko bañ kenn mënu ko bañ ne dañ war continuer di waxtaan de fait que ñun allah ñëw nañ si ñoom ñun ñoo jël initiative ko presse bi pour que démarche bi gën tax parce que si ngeen bokk ñun ñun li ñuy def yéen lañ koy defal ñëpp lañ koy ñëpp lañ koy defal moo tax ñun bu ñu fi jógee incha allah nañ dem ministère avec délégation bi ñu considère ne leen kat yéen ñun ñu ñu jot dégg fee mooy ñàkk ñàkk déggante rek la mais bu ñu continuer waxtaan yi solution dafa am te man loolu laa gëm ne solution dafay am. waaw xam nga loo gis solution bu gaaw gaaw mën na nekk. am na ñoo xam ne loolu mën na ne am na solution yoo xam ne dafa mënul nekk ci saa si il faut mu jël quelque temps ñun moom mbirum courant bi moom man depuis deux depuis trois ans dama si am taxawaay ba mat sëkk boo xam ne duma ma si négocier kenn mooy système bi ñuy facturer le model bi ñuy facturer dañ ko war a changer mënatul ànd ak rythme me de vie bi ñuy tund te mun na nekk c'est possible parce que ñu ngi jëm si. li wax gaz ak pétrole si li wax dañ ne courant bi dafa war a jar de 60 à 80 francs le kilowatt fa la war a jëm Sénégal te loolu mën na nekk parce que am nañ gaz bu ñu ko may kon système système facturation bi nii lañ ñu war a dindi pour que loolu ñu mun ko bénéficier wu buñ ko dindiwul du mën a ñu loolu la ñuy xeex même temps yi passé nee nañ te dindi nañ troisième tranche mais loolu cadeau emploi général man d'accord ma si baaxul ñu proposé leen meilleure solution mooy woyofal bi ngay dégg ni naan diisal man maa ko man maa ko tuddee diisal parce que bu mu seetloo ne dañ dindi parce que woyofal au départ bi muy ñëw jóge Afrique sud di ñëw mooy benn tarif la la am benn tarif kese ak benn kon bu ñu nee bu dugal si yeneen tarif rek lañ yàq esprit bi ñu ne yeneen ñi ne facturation ñi def comme le pays moom euh, boulangerie yi dañoo am seen propre facturation bu la ñu mën a accompagner. ñu mun a am rentabilité ñu loolu parce que volume bi la ñuy jaayee volume bi la ñuy jaay dafa tuuti moom lañu war a yokk te Senelec nag dafa bëgg a jël nag société bi def ko bien privé ñu loolu la ñuy bañ ñun ñun ñun loolu duñ ko nangu taxawaay boobu lañ lañ taxaw que incha allah dinañ gën a xoolaat suñu taxawaay seen plaidoyer ñu dinañ si porté liñ si war a porté comme ni ñu koy porté fépp mais di leen wax rek nee leen incha allah solution mën na am te bu ñu continuer waxtaani solution dina am incha allah